asalaamaaleykum ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonente rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu di leen ziar ku ne ci turam ak santam di leen jaajëfalit ci seeni teewaay eh, lii nag di loo xam ne dañ ko tàmm di ko def at bu nekk buy at di waaj a jeex ba at di door jëmale ko ci war waxtaan ak yéen wara waxtaan ak askanu senegaal ci li nga xam ne lii jot nañ ko dund ci at mi jeex ci li nga xam ne lii yaakaar nañ ne moom lañuy ñuy dund ji ci at mi ñëw te at bu nekk saa yu ma jëlee kàddu di wax ci lu jëm ci lii li may jiital mooy li nga xam ne lii jot na xew 2023 ba pare nag fàttali li ma ci waxoon li ma ci jotoon a wax ba bàyyi ko bàyyi ko euh, taskatu xibaar yi ñu am xalaat buñ ci xalaat euh, waaye tey mu am lu xew ndax dañu jàll parenage kon am na lu tuuti rek loo xam ne dinaa ko ci wax parenage bi euh, ñun yóbbu woon nañu mëtal sëkk cinquante mille neuf cent soixante-quinze parrainage du xaw a jege juróom benn fukk fukki junne parrainage euh, mu am nag luñ lu loo xam ne ni def na ci dab muy li ñuy wax doublon externe maanaam parrainage boo xam ne du ñun rek ñoo ko ñoo ko joxe waaye ñi ñu jiitu jot nañ ko joxe itam muy fukk ak juróom ñaari junne parrainage ak lu ci topp waaye ba tey génn guñu deuxième round moo am mu am nag loo xam ne dinaa ko ci wax ndax 2018 ku nekk dina fàttaliku ne parenage amoon na fi buuxante candidat ak mandateeru u candidat lu ñu mujjee am ca conseil constitutionnel ñu ngi rafetlu nag ren leneen dikk waaye ah yaakaar nañ ne xëy na indi na tane waaye fajul góom fajul góom ndax dublon dëgg dëgg dëgg moom dañu ko wara a jàpp mu doon loo xam ne dafa illégal yoon ko wax koo xam ne kii jox na parrainage benn yoon joxaat ko ñaar yoon yenn saay sax ñu joxee ko ñetti yoon def nga li ñuy wax délit yoon war la topp kon boobu doublon ndax yoon la ñu bàyyil ko diw bañal ko diw ñun ci sañu yaakaar bu ndaw li doon yoon dëgg-dëgg mooy ku ne ñàkk doublon ku ne ñàkk doublon ki ca jiitu ak ki ca topp ndax nag bàyyi nañu jiital doole buuxante indi tirage au sort de hasard xaw ma ban la ci yàlla gën a nangu war nañ ci xalaat nag waaye itam di fàttali ne te loolu maître Abdoulaye Tine jot na ko wax di fàttaliku ne système u parrainage bi nga xam ne bii moom moo fi ne teguwul ci yoon respecté wul suñu constitution kon nañ ca jaar rek ndax am na solo ñu jaar ca yoon ba mën a indi Sénégal yi dund leneen su dul li nga xam ne li jot nañ ko fi dund ci ñetti at yu wees ak xëy na xat sax li ko jiitu nañ ca jaar loolu moo indi ñu nangu ko waaye maître Aliou Abdoulaye Tine génn na ca moom bàyyi na ndax dafa jàpp ne yaakaar naa loolu wax wax wax bu wér la dafa jàpp ne président la république mu mënuñu ko fal jaarale ko ci tirage au sort loolu bëggoon nañ leen ko wax di gërëm di sant képp koo xam ne jàpp na war ñu dimbali ci parrainage bi joxe parrainage am di leen wax ne ah loolu premier round la rek waaye jeexul euh, départ en kooku moom c'est euh, ancien président fédération d'athlétisme moo koy wax départ en flèche ne finit jamais la course kon nañu des ak suñu yaakaar waaye bés dina ñëw ñu war a soppi lii delloo dignité ci outil ji poste président de la république loolu dafa am solo te dund nañu pagaay bu jiitu dépôt de dossier ak dépôt parrainage ñu ngi dund itam loo xam ne méngoowul ci démocratie fii rek la am tirage au sort boo xam ne mooy jiitu nga soog a mën a euh, jàpp ne di nga di nga moog a bokk ci euh, conseil euh, ci ci candidature présidence ñi ma ko doon wax sànq nag lii dafa di lu ñu tàmm am na lu fi xew 2023 am na liñ ca waxoon ci liñ ca waxoon moo am loolu nag du sama coobare bopp damay fàttali rek ne loolu moo doon sama liggéey bi ma nekk banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest prévisionniste mu ëmb juróom ñetti dëkk euh, waaye li ma gënaloon mooy ma bañ a am dëgg ndax toog di séentu loo xam ne lii day nar a doon musiba ci sa réew musiba ci sa askan neexul waaye noppi ko itam warut loolu moo indi ñetti at yu wees xaw ma ndax di ngeen ko fàttaliku saa yu ñu ootee conférence de presse ba discours de fin d'année suñu génn ci di wax ne at bi ñëw xëy na sénégalais yi sont fatigués waaye sénégalais yi ils de plus en plus fatigués en attendant 2024 duma ci sori nag ndax 2024 moo am solo tey 2024 war a indi du ma yàgg ci lu tax 2023 metti lu tax 2023 indi jafe-jafe yu yokk ci askanu Sénégal waaye kenn mënut a bañ ne 2023 Sénégal yi dind nañu loo xam ne lii métti na lool du ñàkk nag ñu toog ñoom ñoom ñuy doxal naan taneef am na fi loolu am na xëy na waaye dafa am fu mu yem ñu ngi yem nag ci ay politiciens yoo xam ne yi bés bu ne ñu dégg ne diw de doon na milliardaire diw day am na wërsëg bu rëy rëy bu dikk ci moom loolu defarul réew li ñu war a jàpp ci li nga xam ne li xew na ci ñetti at yi wees mooy dund sénégalais yi ñu ngi gën di metti ñu ngi gën di jafe donde ñoom bu ñu yëkkatee seen kàddu di ñu bëgg xamal ne Sénégal naat na lépp neex na mu am lu ko firndaal ay taskatu xibaar ngeen li ngeen dégg ci budget deux mille bi ñu doon voté décembre bi wees umpu leen liñ ci jàpp te am na luñ ci bind mooy Sénégal Sénégal mooy dëkk bi ci àdduna gën a gaaw koom-koom. loolu xaw ma kan moo ko fi dund waaye nee nañu croissance ci ñaari at yu wees deux mille vingt deux deux mille vingt trois mille vingt quatre dikk nee nañu vingt sept virgule quatre pour cent la koom-koomu Sénégal yokku PIB nominal PIB réel mu bëgg a àgg ca deux mille deux mille vingt ci vingt pour cent ci ñaari at amul réew ci àdduna boo xam ne bii euh, émergence am àgg na foofu waaye boo déggee loolu mu feeñ ci rapport au budget loi budget 2024 li nga xam ne lii moom lañu mën a jàpp muy dëgg loo xam ne lii Sénégal yi ñu ngi koy dund mooy njëgu dund bu yokk te kenn xamul ca fan lay yem li sénégalais yi dund mooy ñàkk xëyum xale yi ak mag yi loolu moo fi am te bés bu ne buñ koy nat ñu gis ne mi ngi yokk li sénégalais yi di dund mooy li nekkoon seen poos war a des ci ñoom muy dépense gën a wàññeeku ci yokkatum courant boo xam ne amul ci Afrique ñoo gën a cher les courants fépp foo dem ci ci Afrique waaye itam boo gëstoo jéem a saytu secteur boo xam ne fii ci Sénégal ñu ngi dox dox bu normal doo ko gis amul nga war ci teg nag faju di gën di jafe war ci teg njàng mi di gën di metti di gën di jafe ba ca université bii nga xam ne tëj nañ ko xale yi ci seen bopp xale yoo xam ne yi dañu tamoon di grève jóg ne dañu bëgg a jàngi ji nga tëj di dund itam démocratie buy dellu ginnaaw kooku bu xëy na dinañ ci dinañ ci wax mu am nag loo xam ne moom génnu fi mooy yàq pasar pasar xaalis boo xam ne ñëpp ko bokk muy xaalisu budget xaalisu askan ñu ngi ñu ngi koy gis ci oto yu bees oto bu nekk bu jaree cent million wees na ko bu dee ay Toyota V V8 doon ay ay Audi yu bees ñu ngi koy dund ci ay tukki yu dul jeex ci classe yi gën a euh, cher ñu ngi koy dund ci hôtel yi gën a cher ci àdduna bu ñu demee ca ca Paris la France ñu ngi koy dund itam ci foo dugg war fa laajte loo xam ne lii sa droit la ndax sa impo moo fay administration ñu lay wax loo ma ciy jox lan laa ciy am mënuñu nag noppi li nga xam ne lii nappkat yi ñu ngi koy dund suñu moo yi ñu ngi koy dund ci licence yoo xam ne ñu ngi koy joxe n'importe comment muy gaañ di di wàññi jën yi nga xam ne yi mool yi mën nañ ci jot mu ñu bañ a tudd itam li xew ci saa yoo waxee lu jëm ci suuf saa yoo waxee lu jëm ci ressource minière maanaam li nekk ci suuf suufi suuf ba noppi nag bañ a doxal yoon bañ a teg comme ci yoon loolu mujjee indi lépp boo xam ne bor boo xam ne musu fa ag fii ci Sénégal te ci biir union économique et monétaire ouest africaine Sénégal moo moo ci raw loolu indi lépp ëllëg nar a gën a jafe te soxla nañ ko lool ndax lu bari war nañ ko defaraat. bu fi may daanalee nag mooy li nga xam ne li jàpp naa ne moo gën a metti lépp mooy xale yi des ci géej gi ndax rekk bëgg a daw sori seen seeni réew waaw loolu buñ ko waxee ba noppi ndax sañ nañu dégg sañ nañu nangu nañu des ci continuité ndax nag benn bokk yaakaar dal ci lool lay oote continuité ba amee continuité muy njëriñu kan te askan bi di dund lii nga xam ne lii maa ko doon liim sànq ñun li ñu jàpp mooy dañu war a wàllu Sénégal foofu la ñu toll tey te buñ ko deful buñ ko deful a ah, ñu ngi séntu musiba bu rëy boo xam ne mën na fi xew ndax jàpp ne amul ci àdduna musuta am ci àdduna réew am askan boo xam ne dund na ñàkk bu metti lool dund na xiif ndax loolu am na itam rapport bu bees génn na ci premier ministre di ko di ko wane nga teg ci ñàkk yaakaar teg ci injustice loolu musuta am fenn fu mu am réew ma day mujjee looloo tax ñu ne jot na ku ne xalaat ñu war wàllu Sénégal waaye nag soxlawul xeex soxlawul xuloo 25 février 2024 ñaara mën a am kontaan nga ci li nga dund na taamu ñu des ci li ñuy dund mooy continuité mooy régime Benno Bokk Yaakaar kontaanuloo sa xol fees na metti na jéemal indi leneen nga taamu loo xam ne dina mën a doon ëllëg sa njëriñ waaye nag ñun de li ñu jàpp mooy senegal soxla na leneen ak ñeneen Sénégal soxla na muy ay jigéen ay góor yoo xam ne dañ leen di taamu ndax équipe rek mën a defar mhm. du candidat du président de dañu war a génn ci li nga xam ne ñu ngi koy dund yàgg na président mooy def lépp président mooy mën lépp ah ah équipe équipe la ñu war a am waaye nag équipe boo xam ne dañ ci gis compétence équipe boo xam ne dañ ciy gis expérience itam maanaam jaar-jaar boo xam ne am nañu yaakaar ne dina mën a amal njëriñ suñu réew lii indi nag may duut baaraam ci compétence ak expérience mooy jafe-jafe yi metti na léegi góom yi bari nañu bu ma ci liim tuuti rek boo toogee bay xalaat njëgu dund bu mën nee njëgu dund xalaatuma loo xam ne lii dafa jóge bitim réew maa ngi xalaat dugub di xalaat gerte di xalaat bisaab ku bëgg bisaab la ak i leneen loolu nag li ko mën a indi mooy seetaat suñu politik agricole suqali suñu mbéy naatal ko yombut de waaye mu ngi ci suñu programme ndax ñoom dañ ko yàgg ñàkk fay daal ñàkk fay jox ko fay daal ba noppi nag euh, des ci di wax rek àll bi naat na àll bi naat na ana ku ko gis ana gerte un million six cent mille tonnes te gerte di jar ñaari ñaari téeméeri kilo fii fii ci Ndakaaru boo bàyyee mbéy mi ñëw ci budget Sénégal déficit maanaam alal bi nga xam ne Sénégal ñàkk na ko at bu nekk suñu fa àgg Sénégal musu fa àgg kon li ko mën a li mën a indiwaat leneen te muy tane ndax budget ci ñëpp la war a yaakaar ñuy doxal koomu Sénégal mën ko teg ci yoon di def investissement yoo xam ne day doon njëriñu askan wi loolu foog mu am foo ko teg tuddee ko resserrement des dépenses publiques dooroon nañ ko 2012 mujjee ko bàyyi wax naa ko sànq boru Sénégal àgg na foo xam ne musu fa àgg record absolu loolu itam xam-xamu finance dëgg moo ñu ci mën a génne mu des xëyum xale yi loolu du yomb de loolu mënut a yem ci dinaa leen dinaa góor góorlu ba bés bu ne ku nekk am xëy fileeg ñaari at ku nekk am xëy ah, ah. loolu itam dafa am foo xam ne dañ ko war a teg ba xale yi di am xëy ak mag yi itam ndax na nañu te loolu ma leen di wax nii des ci li ñuy dund tey li tubaab di wax continuité munu ko mu am nag loo xam ne soxla nañ ko te mu wékku ci suñu démocratie te muy li war a jiitu ci lépp bu fekkee ne bëgg nañu génnee Sénégal ci li muy dund mooy ay élection yoo xam ne ñëpp coy bokk ba Sénégalais yi mën a taamu ki nga xam ne kii moom lañu jàpp ne moo gën ci ñoom waaye loolu mënut a ne réew boo xam ne yoon day dogal fonctionnaire ne duma ko topp foofu lu ñu toll tey di des ñu ne loolu la ñu xalaat ci coalition 2024 mooy jaarale yépp ci benn mandat tuddee ko mandat de transition benn mandat yi at fal koo xam ne day defaraat day faj góom yi tegaat koomu Sénégal ci yoon bu bees boo xam ne mën na saafara lii nga xam ne li man ko doon lim sànq te bokk na ci li ñu war a defaraat taxawalaat suñu démocratie coalition 2024 loolu taamu war ko def taamu na jàpp na war a indi fii ci senegaal doxalin boo xam ne day doon royukaay ci Afrique mën na nekk day doon royukaay ci Afrique waaye nag du ñu génn ci ba sax ci àdduna ndax képp ku faral di génn bitim réew boo waxtaan nekk ñoo xam ne ñu ngi ca dëkk nasaraan yi da ngay mujjee rus sax ndax nit ñay xoolee ak ni ñuy doxalee sa sa sa sa sa réew waaye bu ñu toogee ba doon royukaay bitim réew bu ñu mës a fàtte li nga xam ne lii ci la suñu programme taxaw mooy le sénégalais d'abord ci lépp waaye toog loo indi jiital ci nasaraan loo indi jiital ci naar man awma dara rien contre waaye dañ ci jiital koo xam ne kii sa réew la la la cosaanoo sa réew sa réew la bokk juróomi at doy na juróomi atu mission ndax nag képp ku toog ñun de loolu ñu xalaat képp ku toog jiital naa toogaat di nga nekk ci politique politicienne te politique politicienne yàq na réew juróomi at yoo xam ne dinañ wàññi doole président de la république ndax suñu réew soxla na ko juróomi at yoo xam ne dinañ dooleel assemblée nationale ci muy gën saytu liggéeyu gouvernement ak président de la république juróomi at yoo xam ne dinañ indiwaat indépendance justice ndax injustice wàññeeku ba boobu mu jeex juróomi at yoo xam ne buñ cay génn. élection buñ koy oo élection présidentielle du doon pagaille ndax foofu lañu toll tey waaye nag les jeunes leaders compétents yoo xam ne wane nañu seen bopp ci njàmbaar mën liggéey wane ne ñu ngi jiital liy njëriñ ci seen réew liy njëriñ ci seen askan ñu noonu mel dinañ topp yoon wa lii li ci des ñu mën ko àggal loolu moo indi coalition 2024 di proposer soppi doxalin ci jàmm soppi ndax soppi dafa jot des ci des ci li nga xam ne lii ñu ngi koy dund mënut a nekk kon soppi doxalin ci jàmm soppi dafa war soppi mënut a yem ci ma jël politicien tegaat politicien dañu génn ci politique politicienne dañ ci gën a de ndax musiba bi nga xam ne maa ngi koy ragal ba novembre 2020 jotoon naa fi wax ne dina am lu xew Sénégal jóge ci xale yi mujjee am mars 2021 bàyyi politique politicienne moo ñu ko moo moo mën a indi loolu kon soppi doxalin waaye nag ci jàmm soxlawul xuloo soxlawul xeex soxlawul euh, saaga soxlawul lakk soxlawul toj ku nekk na nga yor sa carte sànni ko ca fu mu gënee fii ci fa nga gënee am yaakaar maa ngi ñaan sama mbokk sénégalais ñu déglu lii ma leen di wax ndax jot na jot na ñu indi leneen fii ci senegal buñ ko defut ah dina metti waaye nañ ko def itam ci mbooloo ci manko ci ànd jiital war doxal yoon loolu daal la bëggoon wax en tant que candidat mais en tant aussi que membre du conseil supérieur de la coalition Abdoul 2024